woon nag tey ñu daje fii woolu presse bi woolu ñenn ci nit ñi ñu précise tamit ne dañuy def point de presse pour lancer benn mouvement mouvement boo xam ne mi ngi tudd jóg jot na yaakaar naa ne ku nekk ci réew mi ak nga nekk bitim réew war ngaa xam ne situation réew mi ñu nekk jóg jot na ci Baye Modou leeral na ko léegi muy ay ndaw yu am pas-pas yu am taxawaay yu bëgg seen réew ne nag gox bi ñu nekk muy Touba. waaye nag lii day loo xam ne nag lu judd la ñu war koo woon sénégalais yi wane ne kat ah, la ngeen la ngeen doon jàmbat wala la ngeen doon séentu at yi yëpp wala la ngeen doon séentu weer yëpp sunu borom andi na ko muy benn mouvement boo xam ne dafay taxaw ngir lépp loo xam ne soxlay askan wi la. mouvement bii nag mi ngi tudd jóg jot na dañoo bëgg nag mu wi aw turam ndax jamono moo ko yëkkati jamono moo toll foo xam ne jóg dafa jot moo tax ñu xalaat loolu. tuddee ko mouvement jóg jot na di ci woon ñëpp nag tey sant yàlla ndax nii mu tàmbalee loo xam ne manees naa wax ne génn bu njëkk mi ngi nii ñu gis ci loo xamante nii ci ak ci ak tawféex ñu gis ci loo xam ne ci ak yokkute loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax mouvement bi Ablaye politique la mais autrement politique la parce que loolu kenn mënu ko mënu ko mënu ko mënu ko expliquer waaye nag ni ñu xamee politique ba ñu bari seexlu ko doxewuñ noonu moo tax ñu tuddee ko dañuy politique gaa mais autrement la nag musuñoo toog ci askan bi te suñ toogaay bi du tax ñuy wax loo xam ne ëllëg suñu tëddee suñu bàmmeel ñu leen dañ ko layoo ku nu xam-xam na ne musuñoo ñàkk taxaw ngir ngir jeunesse bi waaye musuñoo ñàkk taxaw ngir askan loolu nag dañoo dem ba xam ne nag lii war na caa a juddoo moo tax ñu ñu ñu wutal ko ndey wutal ko bàyyi jaarale ko fu ñu ko war a jaaleel ba mu juddu waaye ñun naka jekk ci askan wi la ñuy xëy ci askan wi lañuy ñuy gont ku nu xam-xam nga nu ci diggante intervention ku nu xam-xam nga ñu ci nangam ku nu xam-xam ñu ci nangam jërëjëf di ko tudd waaye lépp loo xam ne soxla doomu aadama la mu dëpp ak bëgg-bëgg lislaam ku nu mos a xam ci dëkk bii gis suñu kanam yi da nga ne kii li muy wax lu am la mooy li xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk muy Sénégal budget bi Sénégal yëpp ñoo ko moom Touba kenn ku nekk xam na ne li nga xam te ni moom moom lañ fi am nii un tiers bi sax Touba amu ko te loolu li ko waral mooy ñi nga xam ni bu ñuy dugal dara Touba ñu lañ koy jaarale ci seen lox loxo 99 pour cent yi ñoo lekk loolu waaye nañu xam ne fii léegi dund na kenn du dootu lekk de waaye kenn dootu fi mën a lekk mu rees te kenn du la ko wax duñ tee nag kenn lekk waaye lekk mu rees ci jàmm moom ci loo wërta lekk jeex na fi moom dootu fi am képp lépp loo xam ne askan wee moom kenn dootu ko jël du ko séddoo loolu mu sax su fi moom loolu moom jeex na képp ku ko mën a yor tey ak ëllëg ci département Mbacké bii ak ci Sénégal gii da nga parce que li tax ñuy sooraale nit ci am réew loolu yàlla may nañu ko muy mbooloo kon lépp lu mën ñu yëmuñu rek parce que ñu ñu ñëpp ñaan nañ yàlla kenn ku ci nekk 2045 sax fekk leen te incha allah bi kon léegi képp koo xam ne muy mooy ñi ko yor tey ak ñi yàlla tudd ñoo ko ëllëg dana ñuy sóoraale ndax li tax ñuy sóoraale nit yàlla jox nañu ko muy mbooloo loolu moom amuñu ci inquiétude képp koo xam te yaa ngi fi wala ku nar a ñëw looy defati ci département bi wala nga koy def ci dëkk bi da nga ñu sóoraale ndax li tax nga ñu sóoraale mooy li nga soxla la ñu yàlla jox muy mbooloo xam nga député moom lu baax la ci réew waaye nag ni Sénégal di doxee moom boo amul majorité daanaka da fay toog rek parce que temps de bi ngay am boo nekkul député sax moo xam ci comme yi mel ne yéen jàpp ndal yu mel ne journaliste yi wala yeneen yeneen organes yi soo nekkee assemblée sax ay mérite ngay am kon képp koo xam ne ne nga da bëgg a taxaw askan wi wóoroo rek yootu député député moom boo amul majorité ci réew mi daanaka député gi amul njëriñ su fekkee dangay ngay taxaw askan wi nag danga koy commencé ci façon bi nga mane comme bii ñu tàmbalee commencé ko ci suuf di màgg di màgg ba ci fii ñu nekk ci tey donc kon ñun taxaw askan wi ñu tax jóg jóg député taxuñoo jóg parce que député ñëpp nuñ ko am mais dañoo bëgg a fexe nag képp koo xamante nii yor nga réew mi mbaa nga parce que yéene yor looy wax da nga ñu ci boole looy dugg te bu buñu te buñu ci boole rek ñëpp bokk ci ndax ñun ñëpp ñu suñu ginnaaw loolu moom loolu moom bokk ci sunu sunu sunu taxawaay bi njëkk mooy fexe ba fépp foo xamante ne lu mel ne nit war nañ fa dara moo xam liñ ko li ko mu daam waxee mooy état parce que moom moo ëpp doole deuxièmement am nañ ay ay ay partenaires ay nit ñoo xamante ni lu nekk mënal nañ ko Touba moo xam ci ci wàllu assainissement moo xam ci wàllu ay ay làmp moo xam ci wàllu jàppale jigéen ñi moo xam ci wàllu jàppale góor ñi loolu nag duñu duñu dañuy jóg ngir fexe xëcc ñooñu te incha allah bi ci kanam tuuti nit ñi danañ gis ne ñun lii moo ñu ñuy daje lii moo taxoon ñu jóg maanaam maanaam ñun façon bi nit ñi bari doon doxee ñun xaaruñu ay kii dañuy def lii wala xaaru kii def la ñun askan yi moo ñu tax a jóg soo gisee bi ñu ko wootee nii nit ñu nit ñu wuysee xam nañ ki ñi leen woo lañ leen lañ nekkoon démb ak lañ nekk tey nit ñi léegi kenn mënul leen a nax waaw boo boo gisee nga woote ñu wuysee rek yow mi woote xam nañ la kon xam nañ ne démb ci nga nekkoon fii bari na ñoo xam te ni képp ku ku ku ku gàllankoor dal wala nga am soxlay àdduna suñu borom dogal na nga ñu xalaat te loolu ëpp na ñaar fukki at yàlla ñu ci dimbale kon loolu ñun du lu ñuy jàng nan la ñu mën def ba taxawu askan wi moom nekkatul lu ñuy jàng lu ñuy lu ñuy lu ñuy tari lay doon